Eh, xam nga làmb moom xew-xew def ci yàgg. li tax man la xew-xew def ci yàgg. CNG sax booy xool tey am nañu ministre bu bees ministre des sports bu bees. donc kon làmb moom ak sport loolu def ci yàgg. te écrit bi yëngu bi moom milieu làng làmb dégg nañ ko. kan ni grand mbooloo daaw ba ren mi ngi yëngu. ñaan yàlla yàlla mi ko yëngal nag yàlla defaat ci ndox mu sedd dugalaat ci loxoom ndax dugaloon na ci loxoom. Hmm. ndax écrit am 9 ans. boo demee ba bokk ñuy def rang nga bokk premier bokk deuxième bokk troisième bay am rang beneen rang boo xam ni yaakaaroo ko woon donc kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla delloo ñu foofu ñu nekkoon bon démission bi nag amagul démission bi amagul mooy ñoom demandé nañ seen démission xëy na am na lu leen naqari ndax xale boo ko encadré su amee lu ko naqari dinañ dama bëgg a bàyyi ñi ngi leen di raisonné raisonné nañ leen raisonné nañ leen ba sonn nag ndax fi mu nekk booy xool ñi ngi euh, ndox ci baat ndox ci baat mooy affaire bi profond na ndax làmb ji ubbi na te ñoom ñi ngi mat fii ñu fii ñu fii ñu màtt te bu doon suñu sago du ñu bàyyi muk c'est parce que ay doomu graef la ñu dañuy bàyyi xel bu baax ci ñaar ñu nga tudd muy fourier ak Tmax Pablo nag kenn la boo xam ni bëriwul combat sax may jàmbaar la ci xel ndax boo yooyu ngay gis noonu genn wàll gi yëpp ñun dirigeant yi bu ñu demul géej moo leen di taxaw mooy ànd ak ñoom ci taxi yi moo leen di yee fajar donc ku noonu doo bëgg mu dem. Aldo fii sunu ginnaaw la dëkk papam sunu xarit la muy doog a dëgmal làmb am benn combat bu doon sunu sago du dem. e bébé xar yàlla xale la boo xam ni jàmbaaru fàkk tëdd la am na fit boo ko yóbboo ci géew doo tiit ak résultat bu mu fa mënti jëlee doo bëgg mu dem donc kon loolu moom ci tànk yooyu lañu nekk mais démission bi moom ñoom ñi ngi ci te confirmé nañ ni dañu bëgg a dem mais nag bëgg dem ak bàyyi nañ la wala bàyyeeguñ la loolu nag moom amagul. écurie bi eh, gëj na neex ni mu daan neexee comme ni ma la ko waxee mooy écurie su amee vingt sept combats am quatorze défaites am euh, douze victoires benn sans verdict eh, loolu dina bokk ci li leen naqari xëy na nit nag li naqar ci xolam ba nga xam ni moom eh, du ko mën a wax ñëpp wala du ko mën a wasaare fu waay nit tool di ko dégg xëy na loolu mi ngi ci mais xam naa ni écurie bi moom E ni mu daan neexlee neexlewu ko am na ay yëngu-yëngu yoo xam ne nag du xuloo du dara réeroo la ndax famille bu ñuy ànd yow mi moom sa kër sax léeg-léeg nga réeroo ak sa njaboot donc réeroo moo ci nekk xëy na looloo tax ñu bëgg ñu dem looloo tax ñoom ñu bëgg a dem mais ñun vraiment xam naa ni ñoo ngi def sunu e, kent lay kàttan pour ñoom du ñu dem mais xam naa ne am na lu leen naqari li ci profond nag mooy waxtaan nañook ñoom ci biir ak ci biti pour revenir leen ci que fu ñu mën a nekk rek Grand Yoff la ñuy représenté bu doon suñu sago ñu dem.